waa jërëjëf euh, may wax euh, allahuma salli ala seydina muhammad wa salim di sant yàlla sunu boroom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di wax rek ne am naa mbégte tey muy samedi quatre juillet 2020 ma ñëw fii en face théâtre de verdure bi fekk si fii sama jarbaat nga xamante ne yaayam a ngi nii taxaw di sama sama sama jigéen di sama rax mun naa wax sax ci kër gi laa bokk alors kii sama kanam la la yaroo muy Myriam su demee tey ba nekk une femme entrepreneuse ba yor entreprise am fas si food bu mu créé ci buntu këram soxla autorisation ànd ak banju gi ñëw ma a ko demal encouragé ko ndax dama bëgg encourager l'initiative de l'entrepreneuriat des jeunes mosul ñëw ne ma may ma cent wala may ma cinquante mille juste tonton dama bëgg liggéey dafa am lu ma bëgg a defar yow laa bëgg nga inauguré ko daggal ma ruban bi et ça je très fier je voudrais que tous les jeunes puissent avoir cette initiative là cette audace damay jóg liggéey sama bopp même bu fekkee entreprise jaay caaf la tegal sa entreprise jaay caaf bu dee caakiri li def ko moom elle a osé li mu ci gën a neex nag mooy mu tuddee ko waa kër Serigne Saliou Mbacké am naa am naa ci am naa am naa ci du moins yàqin ne day dox incha allah parce que am naa ci ay misaal yu bëri ki nga ko tuddee muy Serigne Saliou boo ci amul dut amoo ci benn benn espèce de de suspicion nga gëm ne doom dina ko yóbbu nga ci def lu law yaatal sa xol xam naa ne di nga am yeneen entreprise yu ëpp yi di nga ci mën a teral sa bopp teral ci say waajur teral ci waa koñ bi tey self service la gratuite donc mu def ko. En tant que maire de la commune de Pékin-Nord, je suis très fier de venir véritablement pour un jeune simple, mais en plus, mu nekk ma nièce vraiment ma ma bëggoon rek mu nekk un message fort à travers vous ñu xam ne il est encore possible au lieu d'aller ci del gaal gi di sacrifier sa vie ici au Sénégal à Pikine et précisément à Pikine Nord on peut se développer on peut entreprendre on peut y croire et on peut aller à... waaw xam naa dina ko concurrencer parce que j'ai un projet pour réfectionner le théâtre de verdure alors donc euh, avec un promoteur privé déggoon ngeen ci coow ñu neen dañ fiy tabax ay auberge ak ay hôtel c'est pas vrai ça je le dis tout de suite je le wax xoof sa kanam yabuma waa Pikine Nord en tant que Amadou jaraa ñëw di tabax dara di ko def di ci def ay affaire yu mel noonu bëgguma sax tudd tur bi mais ñu yàq ñuy wax loolu mais euh, format bi boo xoolee maquette bi architecture bi da gis ne li ma bëgg mooy waa Pikine di mun a fréquenter un lieu culturel bu mel nii d'accord boo bëggee am ay rencontre nga ne foo jëm nga dem théâtre de verdure bi mu am espace am ay ay am ay lieu de am wifi ah nga yor ordinateur bu dee étudiant nga nga ñëw connecté def sey recherche bon couple yi tamit mën na fa ñëw toog foofu naan xam nga laaj bisaab laaj café Touba ah bu la neexee nga ñëw fii ci waa kër Serigne Sëñ Saliou ah, commandé fii sa hamburger ah ci biir fast food bi commandé fi sa fataaya double fataaya nag eh, double fataaya bu baa jaru sax ngay añ ngay lekk ba suur naan sa boisson donc c'est ça qui est important l'initiative buñ ko communer avec euh, les populations ku nekk gis sa bopp loolu mooy suñu rôle donc xam naa ne di même fii au gis ñiy def sport bu ñu paree di dem mun nañ ñëw jàdd jënd seen reer def ci mbuus eg kër ga sango ba pare reer ba suur donc tu as bien choisi le lieu porté axe bii muy bretelle bi lem tamit axe la bi nga xamante ne c'est une axe c'est un axe très fréquenté euh, éclairage public bi léegi ay solaire la fi indi donc da ngay mel ni bëccëg regarde regarde caméra bi fu wëral nit ñi dañuy génn happy quoi parce que Pikine Nord j'ai envie que ce soit le Paris de Pikine je parie je parle pas de p a r mais ville de Paris la France happy niveau d'ambiance boobu jeune Pikine Nord laa bëgg ñu ñu gëm loolu ay moom elle fait partie des initiatrices je l' encourage beaucoup te dina la jàppale bu baax baax d' accord del fay taxe nag taxe mairie bi ah day fay taxe occupation <laughs> aywa di di di félicité waa koñ bi euh, di di wax yaayam na ko ñaanal yow yaay sëriñam boo kontaanee ci moom yëfam jëm ci kawam soo ko meree yëfam daanu nga nga fexe am sa ñaanu yaay amul secret ñun ñi fexe ba mu sori ñu suñu yaay su ñëwaatoon suufu tànk bi lañuy ñuy mat mi ko am tarbiyu bi yow dee ko ñaanal su tooñee baal ko parce que boo ko meree du baax ci moom li may wax rek mooy secret bi yow la ñaanal ko mu dem ba ci kanam ba lii muy liggéey mu mën la ci yóbbu man lii laa gëm la ci kanam man je suis pas un messie euh, pour pouvoir prétendre développer la commune moi seul j'ai besoin de toutes les compétences pour véritablement faire ma partition et partie demain dans d'autres horizons, d'autres perspectives et que d'autres jeunes ñëw diriger affaire yi quoi donc maa ngi lay encouragé bu baax di wax ne kontaan naa reer naa ba suuf naan naa ba mandi léegi yeewee ko rek laay def egg kër ga merci beaucoup.